Brise maa ngi lay ziar Lamine delloo ziar na def. ci loo nekk. maa ngi sant yàlla bu baax baax alhamdulilah. yaa ngi ci jàmm. xanaa yére maa ngi ah, sol ah? pour man pour man yére yére saltige nga ah, sol. loo foogoon ni moom laa sol. yére yére kii yére saltige yooyu. Lamine wax dëgg yàlla lan moo ma def yére saltige lan moo lan moo ma def yére saltige laa sol Lamine ñoo tamit nag bàyyi si yi. non lii dama fa woon lii la lii feeñ nii fii. astaghfirullah làmb ji yàq na la. non mooy yàq na la caat. caat waaw caat après war ko dugal tuuti de. wala après maa ngi seen caat ci commentaire yi. waaw Lamine nga may ma rek. yaa dugg sama heure samedi bi maa ko moom. mais yow yaa hmm. dugg sama heure. voilà hmm. donc comme samedi bi maa ko moom. Ah, ma hmm. war a def sama live nga nga nga commencé live bi kon bàyyi man maa lay dalal tey. d'accord léegi da nga may may rek. Mm-hmm. avant tout ma ma ma ma jaale ma jaale askanu làmb mm-hmm. ma jaale askanu làmb ci suñu pàpp boobu di Boy Bambara tey vraiment askanu làmb teew na fa gis naa fa champion bu mel ni Tafatine bu teewee rek teewal na mbër yëpp gis naa fa promoteur mel ni Pape Abdou Fall bu teewee teewal na promoteur ñëpp gis naa fa ancien gloire bu mel ni euh, père Birahim Ndiaye bu teewee teewal na ancien gulaar yëpp gis naa fa coach bu bu tudd Ibra mbay bu teewee teewal na coach yëpp. Mhm. et cetera gis naa fa Pape Mbaye gis naa fa Basirou Ba bu teewee teewal na manager yëpp donc askanu làmb ñu ngi leen di jaale père Birahim euh, père euh, booy Bambara Aliou Camara yàlla na ko yàlla yërëm waaye ñu ngi leen di jaale itam koo xamante ni ci live bi la bokk. ñu mhm. tàmm ko fi jël. vraiment mhm. chaque instant ñu koy jël muy seetaan live bi chaque instant accro ci moom la papam wàññeeku kooku mu ngi tudd Alain Alain bu rent dakaar production. waaw waaw Alain Ngom. bu rent Dakar production nekk foofu ca France. di seetaan mhm. live bi tout le temps bu ñu ko ciy dugal ñu taxawal combat yi neex moom la waajuram bu góor tamit wàññeeku mu tudd François Ngom dëkkoon Point E. Mhm. tey la woon enterrement bi donc ñu ngi jaale Alain. di jaale waa kër booy Bambara. donc ñaar yooyu vraiment fallait que ma ma ma jaar ci parce que Alain ci ñun la bokk bu amee lu ko naqari rek dañ koy partager vraiment mm. ak euh, amateurs yi nga xamante ne ñoo ñu seetaan yëpp Lamine loolu laa bëggoon wax en ouverture di la déglu. ok loolu am na solo ñu ngi leen di jaar ñoom ñëpp seeni mbokk. ok li ma bëgg nga nga mm. ñëw ci comme ay leeral muy combar Reug Reug bi combat Reug bi yaakaar naa ne xam nga ci lu bari. Mm. xam nga ci lu bari digganteem ak estafam digganteem ak club bi nga xamante ne bokk na ko. wala boobu bokk na fa combat bi ñu bëree bëri nag instant bi dañu ne combat bi amagul fake news la yaa ngi gis yenn commentaire yi sànq bi may commencé live bi rek am na ku ma wax ne Lamine wax leen li fi nekk combat bi le 29 la ma bëgg nga andi ci ay leeral yaakaar naa ni leer na man ci sam boobu sax parce que Leyti Sène bu ko xam-xam ne responsable la du yaakaar naa ne du ma ko woo ci direct mu wax li muy wax ba pare Cheikh Diom mi nga xamante ne mooy préparateur mystique bu Reug Reug woo ma jox ma information bi yaakaar naa ni loolu duñ ko def pour waxu nen man li ma gëm ak li am di wér mooy combat bi am na mais ay leeral pour ñi nga xamante ne ba léegi affaire bi leeralagul seen bopp ba Maama bu bu géej waaye teg si war dama xëy ma envoyé ma benn image dama yeewoo rek dal ci buy war ni bi amagul yan leeral nga ci mën a def. waaw Lutte TV comme daf fi nekk pour leeral ñu expliquer benn yoon Sénégalais yi mu mu mu leer loolu yaakaar naa yow ni nga jotee appel man noonu laa jotee appel jot naa appel yu bëri bëri nit ñi dañuy dem ba dutewu sax ci Lutte TV ne Lutte TV lu tax Lutte TV ne rëg-rëg gañe na Ngalani te ku dugg ci site One Championship ñu ne Reug Reug Ngalani yi c'est le 29 janvier Reug Reug tamit dëggal ni que gagné na Ngalani yi te ñëpp jàpp nañ ni ko combat bi c'est le 29 janvier mooy vendredi prochain donc les gens ne comprennent pas léegi ma expliquer leen un One Championship dafa organiser ñaari événement benn mm-hmm. événement boo xamante ne mooy ak beneen événement booy xamante ne moom mooy le 29 janvier événement bi nga xamante ni moom mooy le 22 janvier est-ce que li may wax leer son. waaw mi ngi dagg mi ngi dagg de mi ngi dagg de mi ngi dagg de. ah day dagg waaw. ñu bëri woon nañ ma téléphone ne ma rëg-rëg bëreegul da ngeen di wax lu leen neex rëg-rëg combat bi 29 janvier la effectivement boo duggee ci Instagram One Championship wala ci site internet One Championship ñoom dañ lay wax ni que événement bi c'est rëg-rëg ngala ni c'est pour le 29 janvier. mais ma leeralal Sénégalais yëpp mu leer une bon fois pour toutes. Mm-hmm. one championship muy ligue bu bees bi nga xamante ne rëg-rëg da ci signé. Mm-hmm. grâce à ñu mel ni Leyti Sène macha allah ñoom dañu organiser ñaari événement mm-hmm. benn bi le 22 janvier. beneen bi le 29 léegi ñaari événement yooyu ñu organiser. ñëpp xam nañu dañ nekk ci contexte Covid. te Covid dafa nekk loo xamante ne. organiser da cee metti même bu dee huis clos la mesure yi ngay jël dafa compliqué donc tey boo xoolee rëg-rëg lii ci seen neenam bu mu demee amul contact ak kenn même ba ca télécommande bi sax ba ca néegam bi sax gars yi dafa am fu ñu ko koy tegal làq ko ba nga xamante ni amul contact ak nit donc xam nga booy gérer ay athlètes fay leen xaalis bu bëri pour organiser genre événement bu mel noonu donc Covid bi ñëw nekk fi nekk un vrai problème ndax boo programmé adverse bi le vingt neuf janvier ci diggante bi mu Covid dafay jaxasoo. donc one championship dafa décidé boole événement wu vingt deux janvier bi ak événement wu vingt neuf janvier bi la boole def ko ci benn bës maanaam mu def ko le vingt deux janvier mooy vendredi bu ñu génn démb. donc ci ci bës boobu la ñu la ñu mujjee def ñaari événement yi mais nag ñoom one championship deful pay per view comme UFC. Mm-hmm. léegi ñoom. dañuy wane seen combat yi gratuitement sur YouTube léegi bu événement bi jeexee ñoom dañu jël nag lu ñu programmé woon 22 janvier moom la ñu dugal biir YouTube. waaw dugal ko seen site internet dugal ko seen Instagram ne lii mooy événement au 22 janvier. léegi li nga xamante ne moom la ñu programmé woon moom la ñu programmé woon 29 janvier te ñu bëri ko démb ba pare. loolu dañ ko denc. mel ni que amagul. léegi nag ñoom ñu ngi soog a promouvoir nag événement bi ci seen ay Instagram dugal photo rëg-rëg dugal photo ngalani dugal leen kii naan kuy gañeek yu mel noonu bu ko defee yow boo duggee ñu la rëg-rëg gañe na ba pare doo comprendre mais hmm. comme ñoom fexe nañu ba ñoom sécuriser seen ay image waaw sécuriser nañu seen ay image ba nga xamante ne amul benn caméra amul benn appareil photo amul benn téléphone bu ko hmm. fa filmer comme ñoom fexe nañu ba sécuriser seen ay image moo tax tey ji kenn mënul gis image wu bu fuité wu combat bi maanaam même Leyti nee na ma parce que Lutte TV bëggoon na yónnee ndaw foofu ca ca ca ca Singapour Lutte TV demoon na bay xalaat naka la ñuy yónnee équipe buy dem Singapour pour tourner ji élément bi ah Lutte TV na ba xalaat naka la yónnee ndaw Singa euh, Singapour pour tourner euh, euh, pour pour filmer événement bi mais Leyti bi moo ko jotee. daf ma ne clairement ni que waa waa One Championship dañu strict même moom manager bi sax demul. ok entraîneur bi kese moo ànd ak rëg-rëg. Hmm. donc entraîneur bi rek moo nekkoon rëg-rëg ci stade bi stade bi huis clos la woon ak technicien yuy filmer ak waa One Championship. entraîneur bi amul jotu filmer téléphone am dañ ko koy tere donc waa One Championship rek filmer ak seen caméra léegi ñoom nag dañuy gëmloo àdduna bi yëpp ni que événement bi le 29 janvier la dañuy ñun bu ñu toogee ba le 29 janvier. rëg-rëg ni ñu ko waxee noonu la nar a demee maanaam la nar gis ima vidéo bi biir YouTube arbitre sifflé ñu bëre moins de deux minutes wala ñu MMA moins de deux minutes rëg-rëg dox ci kawam songu waa ji caxabal ko waa ji daanu rëg-rëg fekk ko foofu dóor ko ay kurpeñ ba waa ji kawoo te pour firndeel loolu mhm. am na benn waaye dañ koy gërëm Instagramu làmb la mhm. bu mu demee ba am jaaxle ci affaire bi gis ni que ñu ngi annoncé victoire bi te gisu ko fenn dafa bind message Alain Ngalani mooy lamb mystique Instagram lamb mystique. ñu ngi koy gërëm ci loolu dafa bind message Alain Alain Ngalani ne ko hi Alain. did you lost your last fight with Omar Kane maanaam est-ce que sa dernier combat ak Omar Kane rëg-rëg den la gagné. Alain Ngalani tontu ko ne ko hello normalement le combat sera diffusé vendredi prochain mais et qu'il n'a pas le droit du wax ci combat boobu noonu. waaye nag mu ngi félicité rëg-rëg mhm. te kontaan na ci rëg-rëg lu mu bëreeg rëg-rëg ndax rëg-rëg africain la ni moom représenté Sénégal comprend nga bu baax rëg-rëg africain la bu représenté Sénégal te kontaan na ci Sénégal kontaan na ci rëg-rëg vraiment prestation bi mu def donc moom munu cee wax mhm. officiellement mais de façon implicite mu ngi mu ngi dëggal ni que rëg-rëg gagné na ko ba pare donc waa waa waa waa làmb mystique ñu ngi leen di remercier ci loolu ñu bind Alain Ngalani donc pour sénégalais mu leer seen bopp xam na ñun dañ tàmmul loolu ñun bu ñu demee suñu làmb yi fii boo ne bu ñu bëggee def huis clos sax gars yi ngi jooy boo ñëwee nga ne image yi kenn du ko am gars yi jooy mais promoteur bu tëgg événement am am na droit ne image yi kenn du ko am du fuite fenn mu toll Sénégal yëpp ngi indi image rëg-rëg yi mais one championship rek moo ko moom donc moom mooy toog bu ko neexee mu toog dix ans soo ko génnee mais le vingt neuf janvier lay génnee combat bi ne bëri nañ ko ba pare le vingt deux janvier est ce que leer na Lamine. ok leer na nañ mais moo tax mu ñoom ñu comme affaire gars yi bëgguñu affaire bi génn résultat yi génn est ce que deful erreur ko siiwal moom ak estafam. waa non xam nga loolu nag c'est compliqué Leyti wax na ma ko Leyti nee na tey bu leen neexee du ngeen gis benn image bu génn. waaw du ñu def benn plateau télé pour dem toog wax nu ñu waajig yooyu noonu mais nag munoo leen ñu teree wax ni que rëg-rëg daan na parce que tamit ay kilifa ñoo ñu doon ñaanal Sénégal ñëpp ngi ñu ñaanal Sénégal ñëpp ngi ñuy supporter ñëpp toog ci nen événement bi du jeex te duñ leen gërëm donc noonu la demee quoi non foo mu libéré nit ñi gars yi yàkkamti woon leen toog xam ndax waa ji da koy dóor mu kawoo xam nga waa ji ko dóor benn tànk ku pied ah. noonu xam nga rëg-rëg nelaw kawoo xam nga bu ko defee bu ñu bisee Sénégal gars yi kukkali ko <laughs> ne dama koy tontu ba sama waay la mais mais mais mais lamin dafay baax ñu def benn précision. damay remercier bu baax la président du CNG Bira dama xëy ma jënd suñu làmb bi ma hmm. ubbi gis ci Bira Sène di féliciter Reug Reug hmm, hmm, loolu c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger Bira Sène geste bu exceptionnel la def parce que bi passé rëg-rëg bu muy mujjee dem MMA. amoon na ñu bëri ci milieu làmb ñu doon def benn genre politique. di genre di def benn mafia pour ne mbër yi dañ lañu war a tere MMA mbër warul MMA lii day rey suñu làmb jeg yooyu mais xam nga loolu man comprendre ma ko MMA bu mbër yi di dem di defe ji dafay jaay suñu làmb ji te mbër ñu ngi nii suñu làmb ji puusul paasul on est impact incapable d'organiser wax rek lañ fi nekkee booy bi dem fële signé combat di lekk xaalis macha allah di jaay destination Sénégal mbër yi mun ci am opportunité dem pratiquer yeneen sport mu am ñu fi doon toog naan MMA bi nañ ko bàyyi ak yooyu. waa CNG sax dégguma leen woon bu bi fi nekkoon bu président Alioune Sarr dégguma leen benn yoon ñu wax ci affaire Reug Reug bi au contraire je pense sax supporté woon nañ ko. mais ah, Bira Sène geste bu mu def nag dafa rafet. ñëw félicité Reug Reug ne vraiment on peut compter sur lui parce que day jaay drapeau Sénégal te loolu lu am solo la. loolu dëgg la loolu dëgg la mais dama koy seen sànq waa kër Ama Balde dama bëgg ñu bind ma dugal leen waa kër Ama Balde. xaw ma Ama Balde non waa nga seen wala Ama Balde ci boppam Instagram Ama Balde ci boppam nga seen. Instagram Ama Balde léegi dama bëgg xam na kan moo fa nekk Ama Balde moo fa nekk wala Zil Balde wala Safaan. waaw na commenté waxumu commenté waxumu commenté na commenté nga dugal ko mais Lamine yaa ngi d' accord ni yi sama heure nga nekk di jël nii sama heure live. d' accord su ma jëlee waa kër Ama Baldé rek bàyyi la nga ko dundale. waaw mais léegi yow lan nga may lan nga may fay lan nga may fay. ah xanaa gars yi fay la rek gars yi ma xool instant bi ñaata personne la ñu am 198 ku ci nekk na joxe 500 ah, rek. waaw ku nekk joxe 500. waaw. waaw mais ma bàyyi la kon ak waa kër Ama Balde yi j'espère que Ama Balde lay doon parce que Ama Balde lu ko gars yi war a laaj bëri na ah donc Ama Balde ngi ci biir live bi waa ah Ama Balde ngi ci biir live bi de Ama Balde l'officiel dañu bind